ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na mbokk yi maa ngi leen di jaajëfal fu ay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safoo wasaare làmb maa leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax a baax di leen jaajëfal saa su ne ci ànd bu rafet bi nga xamante ne yéen a ngi koy ànd programme bu wasaare TV rawatina wasaare làmb di leen jaajëfal bu baax fu mën a nekk ci réew mi ak bitim réew mbokk yi nag boo xoolee samedi bi ak dimanche bi dafa nekkoon journée boo xamante ne vraiment journée làmb la. journée la boo xamante ne li ci am ci làmb ci samedi bi dafa bari li fi am làmb ci dimanche bi dafa bari loolu mooy wane saa rek macha allah jeunesse bi ñu ngi gën a bëgg làmb te fépp foo wootee day gën a fees mbooloo mi dañ lay gën a wuy si xale yi dañ lay gën a wuy si rawatina amateuru làmb yi dañ leen di gën a wuy si ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di ñaan jàmm ci réew mi ak bitim réew ak fépp fu waay mën a nekk ci réew mi euh, li njëkk mooy samedi bi. ci samedi bi lañuy ñuy njëkkee samedi bi dafa amoon ay làmb yu bari boo xoolee euh, terrain gaal gi góor production organisé woon na fa ci samedi bi mu nekkoon journée boo xamante ne journée bu neex la boo xoolee stadium Iba Mar làmb amoon na fa ñu ko organisé woon di waa Rent DKR production ñoo ko organisé woon grand combat bi doxoon ci diggante Bour Sine bu Bawal ak xale bi nga xamante ne mooy Nguer bu Zap mu nekkoon combat boo xamante ni combat bu neex la loolu yëpp ci samedi bi la mbokk mi même samedi bi Sidi Jaxate suñu kilifa moom woote woon na euh, fële ca Thiès benn dëkk ñaari gaar moom it grand combat bi nekkoon diggante euh, Tonnerre ak lay Pythagore mu nekkoon lamb joo xamante ne vraiment lamb ju neex la ci loolu même même moment boobu Thiès wala Tiwaawan amaat na lamb boo xamante ni euh, dañ ko organiser mu nekk li traditionnel mise bi nekkoon un million cinq cent loolu yëpp wasaare làmb demaloon nañ leen ci dañ leen di njëkk a dëkkal làmb ji nga xamante ne moo xewoon fii ci Dakar muy journée rent DKR production mu nekkoon làmb joo xamante ne làmb ju neex la grand combat bi nekkoon Boursine ak Nguer bu Zap nañ leen dem stadium Iba Mar dellu waat rek barasti ko dem ñu ñëwaat ci plateau bi ay ca ñu dem. à gauche raatale léegi. Raquin lu mu nar Raquin ak Raatale Raquin eh door ko da kaaw na day daanu day daanu dafa jël coup lii lan la ñagas de door na léegi Boston nu mu taxawee nii jaaxal na ma de Boston de ñagas de eh eh daan na ko daan na ko Lagas daan na ko. arbitre sifflé Albarka Kairé réparé réparé moo ñëwoon ginnaaw Albarka la nu jàkkaar lool réparé Albarka Kairé daw na jël ko réparé Albarka xale seen combat bi métti na réparé wàcc wala Albarka wàcc na réparé rasu. jox na ko wet moo ngi koy mbot moo ngi koy mbot génn nañu génn nañu génn na jël ko jël na ko réparé daan na ko réparé jël na ko daan ko. arbitre sifflé na Bébé Gouy Gui dox ci kaw Bébé Gouy Gui Agogo Bébé agogo bébé guy gi ago bébé guy gi ngay dóor bébé guy dóor dóoraat na léegi moom bébé guy gi zongale ko zongale na ko agogo bañ na ko caxabal ba rof na ko caxabal oh bébé guy gi daan na agogo bi sifle na Obali Hôtel Dior Ibou Ndiaye Obali Ibou Ndiaye mooñ fete à Hôtel Dior moo ñu féete à droite bon mu sens combat ne. Ibou Ndiaye da koo bëgg a jàpp daw na jàpp ko Ibou Ndiaye na Obeuly xocc na ko da koy da daan waaw doole doole ngeer moo ngi jógee Taïsinga Boursine moo ngi jógee Gris Bawal arbitre bi sifflé na Nguer à gauche Bour à droite Nguer Nguer jàpp ko joxe na tànk ba wet ga da ngay daanu waaw daanu na Nguer daanu na Bour daan na ko. mbokk yi gis ngeen làmb ji nga xamante ni am na stade Iba Mar gis ngeen cosaan gis ngeen mbër yi gis ngeen làmb ji ci jota xew yëpp ñuy félicité waat bu baax a baax a baax combat spécial bi. ndox ci diggante Obaly ak Hôtel joor ñu ngi félicité Obaly di encouragé Hôtel joor Hôtel Dior da ngaa gëj ci làmb Hôtel Dior da ngaa gëj a bëri ndax lu mat fukki at a ngi nii yaakaar naa bëriwoo boo boo toogee dix ans ci làmb bëriwoo wala lu jege dix ans ci làmb bëriwoo boo ñëwee seen normal nga perte repère waaye bi ngay jël adversaire waroon ngaa xool beneen adversaire booy jël bu dul Obaly ndax bari woo ci sens koo ne hôtel Dior Obali ñëpp dañuy xam ne Obali moo nar a jël ndam li parce que Obali moo nar a jël ndam li mooy Obali moo la gën a compétir Obali moo la ëpp masse musculaire Obali moo la ëpp doole Obali actuellement bëreem sax moo gën a bëtt sa bëre ndax nag làmb ku ko bàyyi mu bàyyi la vraiment ñuy félicité waat bu baax Obali di la encouragé yow hôtel Dior di la wax ni làmb noonu la Obali ñu lay ñu lay félicité bu baax. di wax ni làmb mu ngi lay gën a ubbil ay bunt waaye nag del xool adversaire yi ngay jël ndax yaakaar naa bëgg a bëre bu mu tax adversaire bu nekk nga jël ko parce que loolu vraiment yóbbu la fenn daan hôtel joor taxul say say nattangoo ci làmb ñi nga war a am nga jot leen waaw ñu ngi fi doon dégg sa diggante ak Jordan xamuñu fu mujj jékki-jékki nañ gis nga bëre ba pare ngeer bu zab bëreegul sax nga ni sa diggante ak ngeer bu zab taxaw na loolu yëpp lu mat a bàyyi xel la ngeer ñu lay encouragé bu baax a baax a baax di la wax ne da doon bëree xale boo xamante ne ndaanaan la muy Bour yàlla yàlla may ko ndam ñu ngi lay encouragé bu baax di la wax làmb noonu la def nga li nga waroon def vraiment jiitu nga ko ci làmb wala ba ngay bëri bëreegul mais làmb noonu la saa su ne ngay bëreeg ay xale yoo xamante ni war nañoo mën a def ay preuve ci làmb ba mën a dem Bour Sine daan na la mais dañuy taxaw seetlu ci ngeer tuuti rek ngeer del xool bu baax ay adversaires yi ngay jël del xool adversaires yi ngay jël parce que yow tamit ci làmb yaakaar naa bëgg a bëre rek wala xaalisu làmb bu mu tax adversaire bu riiri rek nga jël ko xam nga boo xoolee ci défaite yi nga jógee xool adversaire yi nga bëreel xool ñi la daan ñëpp da ngay xam ni c'est normal quoi vraiment làmb saa su ne du biir day xëyri wasin mais boo génnoon ci Boursine ñu ci baree bari bari dinañ xoolaat Boursine mooy ban mbër est-ce que mbër làmb li mu bëgg am ci làmb mën na ko am nga jóge ci Boursine mi nga xamante ni dafa diis jëlaat ëbbali pour lan pour lan loolu ah ñuy ñuy ñuy félicité waat bu baax Boursine di ko wax sa combat bi ak mobile 2 yàqu na mais wanewaat nga sa bopp ci làmb wane nga ni du ñuy ñooy say adversaire ci làmb malgré Eumeu Sène Junior daan na la mais wanewaat nga ni làmb mun nga cee am lu baree bare war nga ne ci làmb am nga ci cër am nga ci wàll maa lay jaajëfal bu baax di jaajëfal baay laat moomu sama xarit bi nga xamante ni foo gis Bour Sine gis ko ci wetam muy nit ku baax bàyyi laat ñu ngi lay féliciter bu baax ci ndam li nga xamante ni am ngeen ko di di félicité waa Bawol yëpp ginnaaw loolu dañuy barastiku rek dem Thiès benn dëkk ñaari gaar suñu papa Sidi Diakhaté moo ñu fa woon grand combat bi doxoon ci diggante euh, Tonnerre ak Laye Pythagore dañ leen dem te ñëw dellu si waat bi ay ca ñu dem Thiès kaay. Ndeysaan Samba ak Boy Serif ñoom ñaar a ngi noonu. Ndeysaan Samba Ndiol Boy Serif Lo Boy cokkaas na. Samba Ndiol Boy Cherif Lo Samba Ndiol Boy Cherif Lo ndeysaan daw na jëli ko Boy Cherif Lo jël lu xew daan na am na wala kàddaaf yi lu xew Samba Ndiol daan na ko Samba Ndiol daan na Samba Ndiol daan na ko Boy Cherif Lo juum Samba daan na ko Adama kaa ñu dem ci Bakulaay Pythagore te ñëw. arbitre bi sifflé na. building moo la ginnaaw. Marigo moom nga jàkkaar lool building am na lu mu ci loxo yi. of na ko ko. Ndaysaan building. ak Marigo. di joor. ñoom ñaar am na ku ci bëgg a dem building moo ngembo ngemb la ko daw na jëli ko. Marigo xeex na building takk na ko lu mu naar door na ko ci suuf. laa ilaha illallah building takk na ko yenu ba ci kaw dóor ci suuf laaj na beneen juge bi pare na laaj na laay laaj na tonnerre arbitre bi sifflé na mbokk yi samedi 15 janvier 2022 fii ci Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar Sidi Diakhaté moo fi woo grand combat bi dox ci diggante tonnerre ak Laye Pythagore il est vingt heures vingt minutes ñaari xale yaa ngi leewaatoo Laye Pythagore jiital tànk ndijoor tonnerre jiital tànk ndijoor ñoom ñaar bu ñu xeexee dina neex kan mooy dem ceeku ma ngay dóor ci suuf laay fayu na ma ngay dóor ci suuf laay ngay dóor ma ngay dóor ma ngay dóor laay Pythagore a ngay féet ci suuf ndeysaan Tonnerre daa bëgg a fayu waaye jàppul moo tax laay Pythagore Tonnerre laay dóoraan na laay dóoraan na ma ngay dóor laay Pythagore fi mu baaxul ndaysaan kot su baa ngi naan ko plaqué ko ma nga naan laay plaqué ko waaye kot su est-ce que fi mu toll nii laay dina la gis Tonnerre daw na jëli ko laay bañ na laay bañ na Tonnerre jëli na ko laay ñoom ñaar fu ñuy mujj Laye Pythagore Tonnerre Laye Pythagore Tonnerre xeex dañuy génn saaku yi ñoom ñaar dinañ génn saaku yi Laye Pythagore Tonnerre ndaysaan ñoom ñaar ba tey. am na luy xeeñ. ndaysaan. ma ngay jàpp. Tonnerre Laye Pythagore. Tonnerre Laye Pythagore. Laye bi mu jàppee ba tey fi mu jàpp bàyyiwut ma ngay dóor ci suuf. Laye Pythagore mu ngi dóor ci suuf Tonnerre a ngay fayu. maytul wër na ko ndomba laay Pythagore wër na ko ndomba faqan na ko Tonnerre daan na laay Pythagore mbokk yi gis ngeen combat boobu dox ci diggante Tonnerre ak lay Pythagore mu nekk làmb joo xamante ne vraiment làmb ju neex la waaw Tonnerre ñëw na ñu ngi koy ñu ngi koy félicité moom Tonnerre balaa ñuy ñëw ci laay Pythagore Tonnerre ñu ngi lay félicité Agri gëj ngaa bëre say nattangoo ci làmb du du laay Pythagore ndax toneer mi bëreeg Papa Sow Tonnerre mi bëreeg Yékini Junior Tonnerre mi bëreeg Moussa jum Tonnerre mi bëreeg ay ndaanaan ci làmb tey bu demee ba Tonnerre boobu di bëreeg laay Pythagore mooy wane ni làmb dafa tëradi saa soo ci nekkee rek gën cee nekk Tonnerre daan nga dinañ ñëw ci yow waaye dañuy jëkk a dellu ci laay Pythagore laay bëre bi nga bëre xamuñu mooy lan laay Pythagore ni nga bëree ak tonnerre xamuñu fan nga ko teg parce que mënoo mënee sa combat attaqué tonnerre dóor ko xeex ak moom ba ba sànni ko muy di ko waaj a wër ma ba pare nga mujjee di dellusi ci même action boo xam ne kenn xamul da nga ko bëggoon mbot kenn xamul loo bëggoon def ba daan ko mënoon nga ko wër ndomba benn yoon bëreeg moom boo ko waree ndomba mun nga ko dóor mu daan mun nga ko forcer mu mu tëdd mais nga bëre bëre boobu ci action boobu ba daanu vraiment. ñu ngi lay encouragé bu baax njuumte nag du wees parce que boo deful erreur ci làmb doo daanu Tonnerre daan nga ñu ngi lay félicité bu baax mais ni nga bëreeg Laye Pythagore daanul ñi ci kanam déedéet champion yi fi nga toll ci làmb tour bi nga am ci làmb ak fi la làmb yaakaar ni nga bëreeg Laye Pythagore malgré am nga ci ndam waaye du loolu la ñuy xaar ci yow. gënoon nañoo gis Tonnerre bu gën a coriace Tonnerre bi ñu gis gënoon nañoo gis Tonnerre bu am doole ci Tonnerre bi. macha allah nag forme bi mu ngi fi mais yaakaar naa liggéey bi dafa des nga gën a liggéeyaat bu baax a baax a baax ñëw ci làmb te xam ni say nattangoo ci làmb ñu ngi fi ñi nga mën a bëreel ci làmb bari na. ñi ngi ay adversaire yaakaar naa ci làmb Tonnerre bokk nga ñi ci gën a bari la ay adversaire tey am na noo doon def ci làmb la Yékini Junior mi nga bëri loon boo ne ko kaay ma may la revanche mu ñëw waaye nag Yékini Junior ci Tapha Tine la mujj. te yow ba tey yaa ngi ci lancé boo xamante ne vraiment ñu ngi lay ñaanal nga gën a góorgóorlu ñëwaat ci làmb ba lépp li nga bëggoon ci làmb nga am ko. mbokk yi noonu la ñuy def bu ñu génnee Thiès rek dimanche bi dafa nekkoon journée boo xamante ne journée bu neex ci làmb la. waaw ndax boo xoolee Jëri Ngoone production moo ñu woo fële ci stade Jom Iba Mar Diop grand combat bi doxoon ci diggante armée bu benn barak ak ambulance bu Thiès mu nekk làmb joo xamante ni làmb ju neex la. mu nekkoon làmb joo xamante ni vraiment stade bi foo sànni mbàtt mu tag ñuy félicité waat bu baax a baax a baax Jëri ngoone production ci liggéey bu rafet boobu nga xamante ne def na ko ci làmb ji mbokk yi kon dañuy dem stade Jom Iba Mar journée Jëri ngoone production armée ak euh, ak ambulance bu ko defee ñu dellu siwaat ci plateau bi xool combat spécial bi dellu siwaat ay ca ñu dem bañ un ah, ah, ah. eh, ñu xool bu bunt bi wëree bébé garga tamit jàpp na waaye mu ngi sol xël bébé ama bébé ama bébé garga ay lu ci cuub ak ay may ay jigéenu Sénégal a mën sañse waaye ambiance ngi yëngal supporters yi waaye ba tey bébé garga mu ngi sol xel ay kuy yu sew bébé garga mu ngi sol xel pour bébé ama sigi waaye bébé ama boo xoolee fu mu loxo ba da koo ca ca ba moom bébé ama waaye bébé garga ngi dóor bébé garga ngi dóor bébé ama li mu bëgg ndax eh! daanu nga bébé garga daan na bébé ama Bébé Anne Sadji ñoo tolloo doole ñoo tolloo ñoom ñaar neexoon nañ eh bi combat na daw génn naa mu jeexee ko waaye bi ni mu doxalee noonu la Vito Sa Thiès ba Vito ngi ne tekk di ko déglu eh mbay bi combat combat bi yàgg na metti na bëre leen eh, dañuy yuuxoo yuuxu ba jeexal dañuy yuuxu ba jeexal Vito eh saa jokkaas na saa doon na gauche droite Vito fay na saa daw na Vito daw na jël tànk ba bañ na saa bañ na eh Vito dugal na ku Vito Sa Thiès Vito na ñaar loxo ci ngemb waaye daan tey ngee ñaat Sa Thiès Vito Sa daan am na ñaari loxo ci ngemb waaye daan doo ngeen di puus Vito day bañ ndax Vito ci defet la jógee Vito Sa Thiès dugal na benn loxo bi ci ngemb li mais Sa Thiès daa jàpp ndengeñ Vito ngi sëxal pour mi sigi Vito Sa Thiès na leen lu xew arbitre woowaat na leen arbitre woowaat na ah Vito cinq avertissement lamb ji jeex na jeex na Vito daan nañ ko par avertissement daan nañ ko par avertissement ah, Congo amagul ku bu tax ñuy wax amagul ñu ngi lewtoo lewtoo bu diib ñoom ñaar moo tax ñoom ñaar duñu sooxa sooxa seen combat kenn ku nekk da ngay sa morom hee Armé ambulance Armé am na ñaari loxo ci ngem ba pare ndengeeñ ambulance a nga koy sooxal mu sigi Armé sigi na Armé ambulance Armé ambulance Armé ambulance ngay liggéey lu xew ambulance ambulance ñu woon ginnaaw Armé kanam supporters yi boo leen dompatee duñ ñaari xale yi kenn ku nekk da ngaa di liggéey Armé ambulance Armé am na ñaari loxo ci ngemb eh, mbay Armé ambulance ku nekk da ngaa di joow Armé lu mu bëgg armée da koo bëgg a kal caxabal la eh armée ambulance ambulance daan na armée ambulance daan na armée waxoon na ko mbokk yi gis ngeen li xew stade Jom ngeen gis combat spécial bi mu nekk combat bu neex doonoon ñaari xale yoo xamante ne vraiment euh, wane nañ seen bopp muy Sa Thiès ak Vito ñoom ñaari xale yépp wane nañ seen bopp. vraiment ñu leen di ñuy encourager euh, xale bi perte di Sa Thiès di di féliciter Vito di wax ni làmb noonu la am na nag lu ñu ci gis ci combat spécial boobu mooy première action bi arbitre yi faw ñu ciy bàyyi xel première action mbëri bu ñu jegee saaku yi bu fekkee action bi bu commencé rek bu ñu demee ba ci ginnaaw saaku yi day jur complication bu mbëri jegee saaku yi rek na arbitre yi àtte mais yaakaar naa ni chaque fois dañuy gis loolu di ñëwaat muy action yi nga xamante ni day commencer ci biir géew bi jeexee ci biti chaque fois dañuy gis day poser problème bu baree baree bare arbitre yi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax ndax amateurs yi làmb yi ñu ci bari bu ñu gisee loolu dañuy xam ni réglement bi dafa am lu mu wax action bi commencé ci biir géew jeexee ci biti sit am na mais saa su ne loolu nañ ciy bàyyi xel di félicité bu baax a baax a baax Vito di encourager Sa Thiès di ko wax ni làmb noonu la na gën a góorgóorluwaat ñëwaat ci làmb ambulance ak armée armée vraiment euh, maa ngi lay encourager gëj nga bëre malgré mais am na système boo indi ci làmb ji ba ñàkk sa combat erreur nag bu amul doo doo perte sa combat mais combat bi gis nañ ni macha allah kàttan bi dafa xaw a dafa xaw a des par rapport ak ambulance ndax armée bi ñu xam képp koo takk dóor ko euh, kal ko kalu biti boobu. vraiment boo force action bi mën naa jeex mais nag li tax nga takk ambulance forcer action boobu jàllul doole la ndax xarañte bëre bi mu ngi ci yow ba tey macha allah euh, te gis nañ ni combat bi liggéey nga ci mais kàttan gi ngay gën a yokk rek sûrement nag xamuñu lan moo la dal xamuñu lan moo la dal mais armée bi ñu doon gis armée boobu des na bu dee wér gu yaram daf la ko mayul bu dee dafa am leneen loo xamante ne daf la ko xañ ba tey gisaguñu armée boobu ñuy félicité bu baax ambulance di ko wax ni vraiment jël si nga revanche waaye am nga ndam lu mucc ayib parce que revanche bi nga jël si woon sa diggante ak armée armée daan la stade Jom Iba Mar nga ñëwaat stade Jom Iba Mar bëreeg moom fayu mooy wane ni làmb am nga ci cër am nga ci wàll te làmb ñu ngi lay bàyyi xel ñu lay félicité waat bu baax a baax a baax di encourager armée di félicité ambulance di félicité waa Thiès yëpp. mbokk yi kon bu ko defee dañuy barastiku rek dem arène nationale ki ñu fa woon mooy Assane Ndiaye njiital Bawol production moom moo ñu fa woon combat grand combat bi doxoon ci Youssou Ndour ak xale bi di caatu yoof dañuy dem woon leen lépp loo xamante ne xew na fa ci ambiance ak combat yi mu fa tëgg yëpp nga xam ni combat bu ci nekk mat na grand komba ñu dellu siwaat ci làmb ci ci plateau bi ay ca ñu dem abidou sëf na caatu Colobane Mbaye Mentien caatu Colobane la ñu jaakaar lool Mbaye Maintien Abou. da koy songale point faram la échange loolu lay wër nii xam ah, xaritu Papa Thion la. daan na caatu Colobane daan na Mbaye Maintien. yàlla na nga seq. Fallou Kalando Rambo. Fallou Kalando Rambo jël na eh, day daanu. day daanu day daanu day daanu Fallou Kalandoo daan na Rambo caatu Yoff doomu Yoff caatu montagne arbitre sifflé doomu Yoff moo ñu won ginnaaw caatu montagne la ñu lool doomu Yoff caatu montagne caxabal na ko caxabal plaqué na ko plaqué da daan waaw caatu montagne plaqué na ko daw ak moom caatu montagne daan na ko nee na ko mën na sama bakkan laa ciy teg. arbitre laaj na George Bush laaj na Boy Diakhao arbitre bi sifflé na George Bush Boy Diakhao ñoo ngay demee wet ñoo ngay demee wet ñoom ñaar George Bush Boy Diakhao Boy Diakhao George Bush. waaw ñoo ngay xeex ñoom ñaar Boy Jaxaw Zozu Buus xeex nañu doon na ko mu daanu Boy Jaxaw doon na Buus mu daanu. forme bu jaar yoon macha allah liggéey na ci combat bi Giro nag balaa ñoo xam ban lan la liggéey ci combat bi foo mu jàppante parce que boo xoolee Nokia moo ko ëpp masse musculaire mais Giro daa mën a bëre ba pare daa saay-saay ci bëre daa pànk ci làmb ji. buntu la daw na jël ko. jël na tànk ba jël na tànk ba. Giro da koy daan daan na wala déet. daanu ko war na ko ndombo doo ci génn Nokia doo ci génn Giro daa mën a bëre Nokia doo ci a bëre Giro war na ko ndombo war na ko ndombo xoolal Nokia Giro war na ko ndombo Nokia bu génnee ci lii ma xam ne ndaanaan la ci bëre lii oh, bu ko Nokia génnee ma xam ne ndaanaan la na dama koy war ndombo bu baax Ousseyn gën a jàpp de a jàpp parce nii mu ko waree ndombo wóorut à tout moment Nokia mën naa génn en tout quatre appuis am na wala déedéet amagul ba tey en tout cas tànk Nokia bi ba léegi mu ngi ci kaw giroo na fi mu féete Nokia bu doon maay moom Ousseyn damay génn saako yi damay fexe raam parce que saako yi jege na ma génn jàmbar dawul dafa wuti doole giroo na bu doon maay moom damay def rotation gën jàpp bu baax. waaw mel ni mu ngi lay dégg téye bu baax a baax a baax bañ mu rëcc parce que lii penalty la ci làmb. mën mu ko am da nga koo war a exploiter. juróom séance gis na. gis nga dama la gis nga da a da koy gën jege. parce que jege boobu mooy avantage am. Nokia. Giro daan na ko. Giro daan na Nokia. daan na Nokia. Giro daan na Nokia. Giro Seras daan leen ba moo ñëwoon ginnaaw. Koña numéro 2 nu jàkkaar lool. aajee loxo bi nag jëne ko. mun ngaa mun ngaa am li nga bëgg gis nga. dina ko daan wala déet. Koña dugg na ci mënul rëcc xeeru ngor doole da koy daan daan na ko. daan dina ko daan. moom wu lamb la. Eh. juróom moom la am léegi daan na ko yaa. am na ko. déet déet bul door xeeru bëreel bul door bul door. da koy wan li ma yebee bul door loolu lamb la. da koy yéen war na daanu na xeeru daan na koo ñaa doole yemul Ousseyn. ñaari mbër yaa ngi ci diggi géew bi caatu ngéwél booy Dakar caatu ngéwél moo ñu wan ginnaaw booy Dakar la nu jàkkaar lool arbi baa ngi laaj ay jugeem booy Dakar kaabar na ko booy Dakar arbitre bi sifflé na booy Dakar teg na pied droite ngéwél teg pied gauche booy Dakar am na lu mu léemu moo ngay leem pareegul doon na ca loxo ba ñoo ngay lewaatoo mbokk yi ñaari xale yaa ngi noonu ci digg géew bi Boy Dakar tibb na ci suuf sa. daa bëgg a gaawal combat bi Ousseyn fausse garde la ak garde normale Caatu Ngéwél na sóoraale bu baax tànkam yi booy Dakar ci tànk yi la jëm te booy xeex te xeex bi baaxul mun naa jiwaloog yow Boy Dakar nag fer na ne garde bi wàcc ci suuf xaw ma lan lay togg waaye ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk xiifoon na sa moroom signature contrat yi ku ci nekk. xas-xas loo na moromam na ngay xeex waaye door mu daanu moom ragal naa ne mënul am ci combat bi jël na ko da koy daan daan na ko jël na tànk ba daan na ko Ousseyn vite fait bi daan na ko lu ma waxoon wàcc bi moo ma jaaxal wàcc caatu euh, booy Dakar bi daf maa yéem ci caatu ngéwël parce que ni mu wàccee boo suufee ba wàcc mais mais caatu ngéwël mi sportif la caatu ngéwël comprendre arbitre bi sifflé na dimanche 16 janvier il est xale yaa ngi ci diggi géew bi Caatu Yoff ñaan na taf ci gémmiñ gi Youssou Ndour ñaan na taf ci bopp bi. Caatu Yoff da lay wóor ci bëre bi te ñoom ñaar ku ci bëre kenn ki xeex kenn ki day ñàkk làmbam Ousseyn. li ma ci mën a xam mooy Caatu Yoff doole daanu ko. bëre dëgg koy daan. bëre koy daan parce que boo xoolee am na taay bi am na gabar bi te am na doole bi Ousseyn Caatu Yoff boo ko gisee nii mu toll. nga xam ne vraiment ndaanaan la ci làmb Caatu Yoof actuellement ci làmb li mu war a wane ci làmb yaakaar naa ba tey waneeku ko waaye saa yu amee combat ñu ne am na bis waaye Youssou Ndour combat bi weesu da cee jàngale lu bari diggante ma Bébé Diouldé dañ ko wër ba muy waaj a daanu bañ yaakaar daanu na mu yeggale xale bi jottali ko daan ko muy wane ni ñoom ñaar ñëpp ay mbër lañ ay champion lañ ay ndaanañ lañ ci làmb Ousseyn. kenn ku ci nekk làmb ji soo ci génnee mën na laa yóbbu fu sori sa carrière mën na defaraat sa làmb ba na xale yi yàqamti wuñ ci dara bi ñuy sottee ko seen gàllaaj waajaay waajaay bi yàgg na mu mel ni Modou Lo Balla Gaye Ousseyn bul sori ñoom ñaar ñii combat bi àtte boppam tey combat dafa am stade Diop Iba Mar am fii stade Diop Iba Mar moo fa doon bëreeg xale bii nga xamante ne mooy ambulance da ngay xeex dóor mu daanu dóor mu daanu door na ko mu daanu waaw. na ko mu daanu door na ko mu daanu Youssou Ndour ko jël na ko lu ko mu daanu gis ngeen mbokk yi combat yi xew arène nationale journée Assane Ndiaye Baol production mu nekk combat yoo xamante ni combat yu neex la combat yi buñ ci bëggee taxaw def ci seetlu yaakaar naa ne temps bi sax dañu ko dul mate mais dañuy félicité bu baax a baax xale yi nga xam ne bëri nañ ci yëpp. am ci ndam di encourager ñi ci ñàkk di wax ni làmb noonu la ñuy njëkkee ci Giro Seras moom mi doon bëreeg Nokia Giro ñu ngi lay féliciter bu baax gis nañ vraiment ni combat bi ni nga ko ni nga ko aborder ba am ci ndam parce que yaakaar naa ni da ngaa wan euh, Nokia ni dama laa ragal te ragaluma la nga bëreeg moom. xeex ak moom ndax jàppoon nañ ni ci xeex bi rek combat bi mënoon na cee jeex nga wane sa bopp bëreeg moom war ko ndomba ba daan ko jël boo xamante ni jël bu rëy la ñu lay félicité bu baax di encouragé Nokia di wax ni Guiro Seras yokkal état bi tuuti yokkal état bi malgré eh, forme bi mu ngi fii mais volume bi yokk ko tuuti waxuñu nag yokkal volume rek nga dem jël loo xamante ni bokkul ci làmb mais làmb fi nga ci toll ni nga ci amee cër. ni la làmb bëggee ak mbooloo mi ngay déplacé di ñëw da ngaa war a téye état boobu ñu lay félicité bu baax di félicité beneen combat bi ci tegu muy nekk ca euh, booy dakaar ak Caatu Ngiwal ñuy félicité waat bu baax booy dakaar booy Dakar ndaanaan la bi mu dalee bëre ba léegi gisaguñu benn mbër moo xam ne daan na ko wël mi ngang combat bi mujj stade Iba Mar la bëre ak gàkku de te gis ngeen gàkk du ko daa mujjee am ndam par décision arbitrale mu nekkoon loo xamante ni vraiment booy dakaar mu ngi gën a wanewaat boppam ci làmb ñu koy félicité bu baax di encouragé Caatu Ngéwél ñu ñëw ci beneen komba Xeeru Ngor 2 ak Koña 2 mu nekkoon combat boo xamante ne combat bu neex la Koña nag dinaa taxaw seetlu bu baax a baax ci yow Koña mystique yi ngay indi ci làmb dafa bari. Koña bul def ni tafaatin indi na gàllaaj gàllaaj bi mu indi euh, rabal la wala wala per marikaan la def na ko ci moog booy ñaa moog booy ñaa am ci ndam yow da ngaa war a def loolu déedéet. Koña bëri bi nga war a gën a favoriser que bi mystique bi nga doon préparé ci làmb ji dafa bari li nga indi ci mystique dafa bari amoo benn temps concentré wu ci sa adversaire am lecture wala nga liir ko vraiment loolu tamit ñu lay xoolal bu baax adversaire yi ngay jël. parce que adversaire yi ngay jël yëpp Kogna 2 dañ laa ëpp doole te say nattangoo ci làmb bari na ñi nga war a bëreel bari na xale nga nag vraiment yaa ngi tegle trois défaites actuellement ci làmb te mënoon na ñàkk loolu yëpp a ah, ñàkk suwaaw adversaire la adversaire dañ koy tànn dangay xool ki nga xamante ni tolloo ngeen doole tolloo ngeen dayoo nga mun koo jël bëreeg moom ñu lay encouragé bu baax di féliciter Xeeru Ngor di ko wax corpulence bi nga am Xeeru Ngor sa niveau ci làmb war naa dépassé fii boo liggéeyee rek sama papa père Birahim Ndiaye maa ngi koy ñaanal na yàlla na yàlla guddal fanam lool te mu ànd ak wér da daan wax naan bu njooli wexee ndaama yi génn làmb te macha allah am nga corpulence bi te boo wexee tuuti rek ñu baree bari ci làmb dinga leen sonal ñu leen di félicité bu baax a baax a baax di ñëw ci grand combat bi mu dox ci diggante Youssou Ndour ak caatu yoof may félicité waat bu baax a baax a baax caatu yoof di ko wax ni caatu yoof amuñu dara dara dara luñ la war a wax lu dul di la félicité gis nañ ni vraiment bi nga simmeekoo indi nga état de forme bu jaar yoon macha allah gis nañ ni yoof gépp dañ laa boot gunge la ànd ak yow macha allah gis nañ ni làmb ji teg nga ko ci yoon ba am ci ndam macha allah loolu lañ doon xaar ci yow te loolu lañ gis ci yow euh, Youssou Ndour ñuy ñu ñu lay ñu ñu lay encouragé bu baax ndaanaan nga ci làmb koo juumul doo daanu mais nag dinañ indi benn critique tuuti ci yow du doon sax critique waaye dina doon seetlu boo xamante ni def nañ ko ci yow mooy Youssou nduur dañu gis Balla Gaye 2 bi mujj moog Bombardier li mu indi yëpp moom la Youssou nduur indi Bombardier nekk na ci temps ci ci digg géew bi lu yàgg Balla Gaye nekk ci ci meekaayam yow it gis nañ caatu yoof mu ngi ci géew bi bu yàgg nga nekk ci sëcc meekaay nekk ci ay débat déeb nga duggaat ci géew bi indi fa ay débat gàllaa ji dafa bari trop yuusu te du gàllaa ji moo doon jeexal làmb ñàkk concentration boobu concentré wu ci gàllaa ji temps bi bari na arbitre di leen xaar vraiment bàyyi leen ci xel bu baax a baax waxoon nañ la bu bu yàgg ne xeex dafa am ci ku mu avantage ci làmb mais bëre dafa am ku mu avantage Youssou Ndour mbër du bàyyi mëninam malgré boo jàppante woon mën ngaa am sens ci combat bi parce que ñaari ñaari ndaanaan ngeen mais ku ci nekk dafa am li nekk sens am ci làmb nga xeex jël ku boo xamante ni mënoon na ñàkk nga jël ku kaawo daanu nga te xamoo sax lu la daan ñu ngi lay encourager bu baax di encourager waa écurie euh, Balla Gaye yëpp école de lutte Pierre Balla Gaye yëpp di leen encourager di wax ni vraiment li ngeen waroon def ci làmb ji yëpp def ngeen ko mais ñu ngi leen ni ñuy encouragé waat bu baax Youssou Ndour di ko wax ni làmb noonu la di félicité Thiatou Yoff di ko wax ni làmbam gën naa ubbeeku tey combat bi amoon stadium Iba ci jour boobu doxoon ci diggante armée bu benn baraak ak ambulance bu Thiès pourquoi pas ambulance bi daan mu bëreeg Youssou Ndour mu bëreeg euh, Thiatou Yoff wala armée bi daanu mu bëreeg Thiatou Yoff làmb loolu la.